salaamaaleykum gars yi l'islam amandi ta ndam pambaay mi nga xamante woon nee na dafa dajale ay millions yu bëri def ko ci kontam préparé 4 mois pour xeex ak Adamo suba ak ngoon mujj naa ruux dem leen si na bam daw na naan Gambie yi dan ma ñaan sama mbokk yi dan ma ñaan artistes yi ngay tiitaroo dan maa ñaan dangaa xam ku la gën a dee gën laa maîtriser Europe ne la boo wàccee ma toj sa cott ndey katt ndeyi commissaire ba doxaan sa ndey yow toj sa lëfal ndey moo tax nga ruux dafoo da ngeen yaakaar ne lam ñu ñaaw yéen rek ko am man ma dugg sa bàmmeelu yaay lu xarti sa yaay di toj cott ndeyam dugalaat ko kon xam nga ne man boo duggee ci man doo ko rëccu boo duggee ci man di nga ko rëcc moo tax mu daw ruux léegi damay xool ndax mottum nawet mii di am zoo moom day ruux wala yàgg na noo nekk ay góor jigéen yu màggan mosuma leen a tal seen i bañ dem na seen as dafa kawe léeg ñu dee mais xale yi ni influencé ak jeunes yi moo taxoon may tepp seen data ndey léegi nag commencé nañoo ruux ñoom ñëpp daw nan góor jigéen yaa ngi commencé di wàññeeku di ruux benn par da ko ci vidéo abonnement wak xaw ma ñoom Zamplicio wak ñëpp sax doo bàyyi yaa nga yëg waxoon boo yëkkatee coow doo ma sa daaneel mais aadama nga ko séqal moo tax nga daw naan dan maa woo gambien yi nangam nangam loolu du woon coow li gars yi nan déglu doog a continuer si na ba ngay toj ruux na yëpp mbaaya su ko defee loolu perturbé ma du ma nelaw loolu def may perturbé du ma nelaw. doo nelaw li dégg dafa ñaaw jëlal. boore aw ma sa jot man bu xaalis taxawee damay bàyyi lépp lijjanti ji xaalis ak nit ñu baax waaw ak gambien yi ma ñaan ne ma mbaaye bàyyil ñoo tax ma bàyyi la ak artistes yi nga xam ne dafa leen di tiitaroo ñu woo ma ne ma mbaaye bàyyil kenn woowu la ne la bàyyi bàyyi dangaa gis ku la gën a ñaaw lamiñ gën laa dëgër bopp góor jigéen puus day dañ ko fii tere commentaire yi xam nga lan laa bëgg lislaam am na ndam merci beaucoup adama te ñoom bu nu bàyyiwul xale yi ni influence sax ma toj seen cottu ndey buñ bàyyee xale yi nag ma bàyyi leen ndax ay góor jigéen yu màggal lan awma problème buñ bàyyee xale yi ni influencé ma bàyyi leen toj lu fal ndey ñu ndaw ñëpp ñu réglé góor jigéen yaa ngi commencé ruux danoo yaakaar ne aadama leen ko séqal aadama mbaaye waxo woon lii lii nga waxoon mbaaya mbaaye lii nga waxoon déglul ba ma woo nit ñi ne leen. déglul novembre ba décembre maag yow may saa bu ma ma woo ngénte du ma dem ku ma dem ku woo takk du ma dem sama billet laay jënd di dem diggante Dubaay diggante Turquie nga ne. nga kenn mënul la daal du nee nga kenn ci yow. kenn mënul ci man tuunu ndeyam. yaa waxoon doo dem xew doo dem ngénte man ngay tal léegi nee nga ruux nga ndax Gambien la woo ak artistes yi may tiitaroo yaa mën a duul da nga fay fekk la puus day. du fi am gaay am na ndam am na ndam te ñoom buñ bàyyee sax duma bàyyi dama leen di seetaan di xibbi xool ñu dekkoon ne moins cinq ma lekk seen nday man la boos day Negri waxoon naa leen ko man la boss Dey Negri waxoon naa leen ko de jëm ñi nga xam ne ñëpp ay xaritu Mbaye lañ fan si Mbaye rawatina sama mbokku Gambien yi waxtaan ak yéen nag parce que gis naa situation bi yéen ñëpp am ngeen lu leen metti waaye xaaral ma romb sécurité bi ñu waxtaan loolu sama yoon nekku ci waaye taxaw naan damay xeexal Sénégal dugguma ci dara mbaay lii lan la ay mbaay bul topp aadamoo sànq mënuma woon wax bu baax ndax maa ngi doon ah, nekk ci rang bi di cekin mais dafa am lu ma bëgg a leeral ci sama problème ak aadamoo xam naa ni yéen ñëpp am ngeen lu leen metti képp kuy nitu mbaaye rek rawatina Gambian people yi démb ba tey macha allah yéen a may woo. yéen a ngi may yuuxu am na ñoo xam ne dañ ma woo wax bay jooy naan mbaay lii du yow mbaay lu tax. mbaay lii lan la ay mbaay bul topp aadamoo mbaay bul topp aadamoo ba vidéo yi ma dugal sax yéen a ma woo yéen Gambien saraxuma su am ñu bari ñoo xam ne dañoo dawal ba sama kër ñëw ñaan ma moo tax ma génne ko. waaye affaire u dafa doy waar te ku mel ni Adamo ni ma koy waxee rek su la woowee wax la lu ñaaw amul problème ndax 2021 woo na yónnee ma benn vocal ma yónnee ko cent quatre-vingt cent quatre-vingt-dix-neuf mu déglu lépp ne ak moom waxu ko kenn ma toog man jàpp sama ñàmb ndax ku ma xam-xam ma ci jàpp sama ñàmb dugguma ci dara aw maak nit benn problème waaw lijjantiwuma kenn sama ambiance laay toppatoo sama mbaboor lekk bu baax tukki gis na ma man dama am jot man bokkumaak moom mi nga xam ne ci kaso la ne ci néegam la toog ah ñaari peeru dàll koy wéttali benn tubéy ñaari tiset ak ventilateur ak benn téléphone am boobu ak ñaari armoire am yi armoire deux bataan yi moom duy dem fenn ndax ñemewul a génn fenn Europe googu sax day làqatu ñamewul a génn parce que ñi koy wër moo bari man nag su ma toogee nekk ci sama jàmm nga xam ne man dama libre fu ne laay dem maa ngi nii di ambiance yi New York City laa jëm nekk ci sama jàmm tooñu ma ko musuma koo tudd aw maa moom benn problème muy xeex xeexi góor jigéenam amul problème na ko xeex man ay doon care loolu sama yoon nekku taxaw naan damay xeexal Sénégal l'islam laay xeexal Sénégal Sénégal de buñ demee ba aadama moo leen di xeexal l'islam ah senegal kor woon na ñëw jot seen bopp Sénégal dëkku mag ñu baax ñi dëkku nit ñu baax ñu ñu dem ba aadamoo moo fay xeex diine pour yéen ñaxi lislaam la leen di xeexal koo xam ne saaga na leen xas na leen sulli seen i sekk rek seen i mbóot xam ne dëkk bu toll ni Sénégal réewu mag ñu baax ñi ñuy tiitaroo réewu kilifa yu baax yi ngeen di tiitaroo fu sénégalais jóg nañ ñun mag ñu baax ñi ngeen toog ba ku mel ne aadamoo taxaw ne moom moo leen di xeexal te loo loo wax aadamoo ko looy xeexal waa senegal mu ne lislaam <laughs> allah naakira aadamoo koo xam ne li mu def ci sénégalais yi kenn mësu koo def li muy wax di ko tiitaroo dëgg la de nee na maa tere sénégalais yëpp ñalaw te dëgg la képp kuy sénégalais rek looy def da nga ciy sóoraale aadamoo ku mu mënti doon day taxaw naan 17 million sénégalais yëpp ñemewuñ ma di dakk saaga nday di yuuxu man nag daf ma boole woon ci set millions yi waaye rocc na ma ci ñi ma ñaan muy sama mbokk gambien yi yam bombe yuuxu na ndey gundo njaay yuuxu anti kobalo yuuxu ak ayda sama yaay faat saaxo nga xam ne mi nga ca Gambie dafa yuuxu vokalu 10 minutes la yónnee ànd ak sama rakk yi Binta Cissé nga xam ne duy wax barki démb laa dem xewam mooy xew muris ma demoon siyaatoon ñoom kat yi ñëpp ramatulaay ñëpp kóol ma mbaay dimbali ñu ay mbaaya ndey faatu gay gambien New York ñëpp ñëpp gambien yi ñëw sama kër ne ma mbaay dimbali ñu nga dindi vidéo bi vidéo démb bi dafa yëngu de dindil vidéo yi te nga bàyyi aadamoo waaye ku ne xam na ne man sama jikko musuma dagg saaga nday dinaay ambiance dinaay kaf dinaay wax waaye dagg saaga nday déedéet waaye ku mel ni aadamoo ku mel ni aadamoo nga xam ne amul jom joma ma nga ak ma jooja ndate aadamoo jéeg bu ndaw bi ci diggante jéeg bu tuuti bi mel ni cuuc ne ci diggante Allemagne ak Italie ci frontière bi làqatu kenn xamul këram kenn xamul sumuy muy liggéeyee mu nëbbu ci pukus bu ndaw ñaari peeru dal la ma koy wéttali ak benn tisatam ak benn tubéy ak benn lunette ak portable am ak tabarakalla macha allah ventilateur bi muy uppoo kooku dafa am vie naan man lay bàkk di wax say wax yow booy wax say wax li jënte say wax waaye toog ci live allo Pape Mbaye laay nangam ndayam ñu wax nag mu taxaw képp ku dëkk Gàmbi non man loolu moo ma yëngal man gambien yi fooyew ma leen de samay nit lañ dama leen bëgg saaga nga ma wuyuma la def nga say live di saaga nit ñi ndey saaga ñëpp ne noonu góor jigéen ngay xeex te yow li nga nekk góor jigéen yàlla tane koo xam ne amoo gàcce amoo rusukaay amoo luy tiit mën a toroxal doomu aadama mën a weer doomu aadama yow yaa tax xale yi Sénégal ñëpp xam luy taat neen yow dong Sénégal gis nañu ne Sénégal gis nañ maire bu màgget amul dara nekk ci baraak ñu ne dëmm la Sénégal gis nañu kuy Sidi Diawara ku sol robb ku takk gerefaas gis nañu lu ne waaye ku mus toog ku mel ni yow ñàkk kersa dof rakkaaju kacca kay ni malade mental bu mel ni aadamoo Sénégal mësuñu koo gis ci kaw suuf léegi nag nga ne Pape Mbaye comme que duy saaga ñëpp dañ koo jàppe ne ko dama da nga calme ma cokkaas ko cokkaas naa ko privé génnul waaye xaaral ma cokkaas ko live ne la noo koy cokkaasee ndax day am ñi nekk sa ginnaaw di la ruux nooy cokkaasee mbaaye ndax yow amoo vidéo mbaaye amoo ay photoom yu muy defee taatu neen mënoo koo def mu ne déedéet ñun sénégalais yi mënuñoo jàpp mbaaye ci dara waaye gambien yi nga xam ne ñoo ko bëgg téye ko Gambien yi nga xam ne bi ko sénégalais yi bàyyee bi sénégalais yi amul ak moom benn affaire Gambien yi nga xam ne ñoom ñoo ko jël def ko doom mu am ci ndey am ci baay am ci famille am ci ay rakk Gambien yi nga xam ne bu ñu amee seen bés kenn doyu leen ci ku dul Pambaay lu ñu am yéene ko Pambaay di defanteeg Pambaay lu baax teg Pambaay ci seeni bakkin bëgg ma bëggeel gu sincère ñu ne xaara ñu saaga Pambaay ndey saaga waale Gambien yi loolu moo tax ma say ma ne kon nag foog ma wuy si la parce que africain dañoo bëgg tey bu ma aadamoo saaga woon ndey tey ma ne patt noppi dañ may woo mbaaya dégg nga li la aadamoo wax mbaaya i mbaaya garaawul aadamoo bu ko topp keneen coupé woote mbaaya man de aadamoo laa doon seetaan mi ngi lay saaga saaga ñaaw waaye bu ko topp mbaaya su ko defee loolu perturbé ma du ma nelaw loolu daf may perturbé du ma nelaw waaye ngir ma bëgg nelaw moo tax ma génn jàkkaarloog aadamoo te adamoo booy jàkkaarloog moom doo wax ak moom ci ndànk aadamoo du dara aadamoo du yàlla du yonent bi aadamoo li taxaw naan man sénégalais yëpp man la ñu ragal man àddina bépp ñeme ma man àddina bépp man la ñu ragal man àddina bépp man la ñuy tiit ku ma woo doo nelaw man de boo ma wooyee damay nelaw ba yandoor maa ngi nii nelaw ba yandoor nelaw ba yandoor waru xale ba nelaw ba yandoor dëkkee lu baax ak lu baax lii moom laa def nelaw ba yandoon laa def jug wax la loo xam ne fu ñee la aadamoo wax mbaay waaye dinañ ne ay la ko mbaaya tontu fu ñee saaga ya lamba aadamoo saaga mbaaya danañ ne waaye ay la ko wax mu des fi nag youtube ilaa yow mi ñëpp di ko tiktok ñëpp di ko instagram ñëpp di ko statut wala ni man daw ma saala yaay ndeer ñaari fan yi mujj dama ko jël rek wàcce sama bopp ba mel ni zéro ñàkk personnalité ñàkk maanaa ñàkk classe ñàkk valeur ni yow tollook yow suufee defante naa ak yow ba mu saf sàpp ba mu saf sàpp démb la woon grand combat bi ma dugal vidéo bi gambien yi woo ma ne ma dimbali ma ngir yàlla war a sori nga bàyyi waaw ma génn vidéo bi ñu ñaan ma nag parce que am na loo xam ne bu la ci nit ñi xamul waroo ko def gaa sax léeg-léeg dañ koy def parce que sa maam da daan wax naan nit ku baax ku ne. nit ku rafet xol ku ne nit ku yiw ku ne nit ku yaru ku ne war ngaa am benn càqum caay-caay goo xam ne danga koy denc pour en cas bu la wuyu wala bandi. nga defante ceeg wuyu defante ceeg band bu mel ni aadamoo pare kon nag lemaat kon ndànk daal di koy dencaat nekkaat ci li nga nekkoon loolu laa def waaye yéen Gambien yi yéen ñi ma topp di ma ñaan. yéen ñi ma topp wax te dëgg la man kenn xamuma ci lii waaye yéen ñi ma topp wax ndax man yéen laa déggal yéen ñi ma ne mbaaya bàyyil saaga yi bàyyi naa bàyyi naa saaga yi bàyyi naa saaga yi de waaye aadam moo na xam ne bàyyiwuma ko bàyyi naa saaga yi waaw bàyyi naa saaga yi parce que sax wax ngeen dëgg nit ki moom boo tàmmul saaga boo saagaa ba pare man fi mu ne xoola ba ma saagaa aadamoo ba pare ba ma demee kër anti ko bala ñu teg ko dama ne ay di dindil dindil bëgguma ko dégg parce que saaga yee ñaaw saaga rafetul waaye saaga du dara saaga ay wax la rek parce que moom li muy tudd ci nit ñi moom la yaayam am. li muy tudd ci li muy wane ci nit ñi moom la yaayam am li muy wane ci góor ñi loolu la papaam am li muy tudd ci góor ñi loolu la papa am saaga ay wax la rek ndax aadamoo doxul ba dóor kenn waaw. aadamoo musu leen dox ba gis ko mu dóor kenn aadamoo musul mbëkk kenn bañ na ko ba képp ku mu saaga boo dajeeg moom dala naan baal ma sukk ci sa kanam aadamoo ngi mel ni mel ni muus mu naan dëwlin béy bu indisposé bay ñaan euh, tampa bu mu rof ci biir silibam bi kooku du def nit ñi dara li ko nit ñi ragalee nag te dama koy dëggal li mu wax dëgg la sénégalais yépp ko ragal sénégalais yépp ko ragal du question ragal pour jàkkaarloog moom waaye lu waay di def tey boo amee sa jëkkër mu ne la fotowul yónnee ma sax da ngay ragal boo amee sa gem mbaa sa far mu ne la defal nangam da ragal parce que ñëpp kuy nelaw yaa ngi sóoraale aadamoo man nag mbay duma ma sóoraale aadamoo jamais de la vie man aadamoo moo muy sooraale fi mu ne nelawul ñaari fanu laay fam yii ma ko defal ci TikTok nelawul lii laa bëggoon perturber ko man boo xasee ba commencé ci man dama bëgg dootoo bàyyi dinaa la wax loo xam ne dootoo bàyyi di ma dugg fi mu ne xoola at mi yëpp ci man lay ne ndax li ma ko wax rëy man bomb bu saf laa lay dóor su ma paree bàyyi la nag nga dese yëfi nit ñi dese commentaire bi ngay continuer di wax ndax aadamoo moo ko mel ni moom wax rek lay def. ñi dañuy am am seeni thérapie am na ñoo xam ne bu ñu stressé aadamoo dafa am dépression am na ñoo xam ne bu ñu amee dépression naan sàngara mooy dindi seen dépression ñiy tux yàmba mooy dindi seen dépression ñiy dem di tëddante mooy dindi seen dépression aadamoo dépression bi mu am. ak mental malaat mental bi mu doon moom foog mu génne di saaga moom loolu da koy bégal koy enjoy toog di saaga nit ku normal nit ku wér du mel ni aadama ñi xam àddina xam nit dëgg dëgg dëgg ñi nga xam ne ay docteur lañ xam nañ ku mel ni aadamoo dafa am ay nit ñu feebar lañu ay malaat mental fii Amérique dañ leen di tëj ci ay néeg di leen garder Amérique dañ leen di tëj ci ay néeg maison dara lañ leen di defal di leen garder wala ñu boole leen ak ay nurse ñu leen di garder ñu leen di fay moom lii mooy life am man nag awma life boobu man dama busy gis nga ma maa ngi nii ci aéroport nii aéroport dama busy maa ngi nii jëm New York ambiance man àddinaa may wër àddinaa ma soxla waaw bu dee nag nee li ngay xeexal Sénégal dalaa ñor nee nga jigéen ngay xeexal Sénégal yow kay daggal bi ya dem Sénégal too ko def de la ilaha illallah salaamun xawla min rabbi rahim yow man mi ma wàcc Sénégal sa woote fa sabar làng fa moo gën a yomb ci yow nga dagg bi dem Sénégal yow man nee nga du mënumaa wàcc Sénégal man gàmbi laay dem nangam waaye yow boo wàccee Gambie sax Sénégal ay fekk la yow Europe googu sax dooy génn waaw kon boo nee man ngay jàkkaarlool ñu wax nga dagg saaga mbay Gambien yu baax yi xeet bu yiw bi xeet bu xeet bu baax bi xeet bi gën ci xeet yi nit ñu baax ñu yiw ñi nit ñu am maanaa ñi nit ñu am valeur ñi li nit ñi topp naan mbaaya waaw gambien yi ñoom dongu ñoo bëgg mbaaya ñooy dooleel mbaaya waa gambien yi ñooy ànd ak góor jigéen yi déedéet gambien yi ànduñoo góor jigéen li ma wax démb ci Instagram de gambien yi bëgguñu góor jigéen xamuñu lan mooy góor jigéen gambien yi xam nga lu ñuy àndal ay nit parce que Gambie ay nit a fa ne man bi may ànd ak sénégalais bi may soog a ñëw fii nekk New York dëkk 116 sénégalais yi laa njëkk a àndal waaye sénégalais yi ma daan àndal dañ may jay Stéphanie laa tuddoon ñu may jay di ma ruux su ma rombee sax duñ ma wooyee mbaay Stéphanie lañ may wooye ñoo may defaral gerefaas yi su may émaay yu ñoo may émaay su ma gàddoo saak sol sama robb di dem downtown ñoo ma yóbbu downtown waaw lu ma def ñoo ci ànd ak man di ma jay bi ma yàlla dimbalee nag ba ma ñëw Atlanta nekk ak Gambien yi ñoom ñoo dindi samay émaay ñoo ma génne ci gerefaas ñoom gambien yi ñoo ma génne ci soli robb ñoom gambien yi ñoo ma ci dem club bu ne def lu ne gambien yi gambien bu ma nekkal xam nga loo may wax ay mbaaya bés booy takk jabar ay mbaaya bés booy am jabar lool rek lañ may wax ñooñu xoole wuñ ma góor jigéen ñoom góor lañ ma xoole ak seen doom ñoom gambien yi mbaaye bés booy takk jabar ba tax na sax lu bari bu ma ko naree def ci sama àddina rek damay xalaat gambien yi ñoom ñoo ma gën a yokk jot te pourtant dëkk naa ak sénégalais New York li may wax ñi nekk New York xam nañ ko bu ma rombaan sénégalais ku ma romb da ma naan waa jéeg bi ay bu lay takk ci réew mi ay bu lay takk. kon nga xam ne man Gambien yi ànduñu góor jigéen bëgguñu góor jigéen ñoom nit la ñuy àndal ndax ay nit lañu te nit la ñu bëgg te dañ maa jàppe comme nit. maa nit waaye liñ naan nit ku lay wut jéem jéem jotu la day seet ka la gën a jege mu jaare fa yow nag da nga maa wut ba sonn. vocal naa def naa fi vidéo di jubóole moo géet ak waali pour pour ñu bàyyante wax yu ñaaw yi pour ñu nekk ci jàmm nga jël vidéo ba boole kook saaga nday yónnee ma ko whatsapp 2021 ma vocal la vocal boo xam 199 vocal yoo xam ne mosoo koo ŋaan yow tey nga am fit sax di ma tudd waaye danga ma doon cokkaat di xool ndax mbaaye dina génn parce que dañ ne mbaaye day mënu duy saaga duy wax nangam yow du ma saaga kenn ki sama àddina loolu dama koy waat duma ma saag benn mbindeef bu ma nit tooñoon ci kaw suuf dóor ma sax ba may bëgg a dee mbaa mu gaañ ma muy jigéen muy góor mbaa mu jël paaka di ma jamate du ma ko saaga waaye loolu dama ko waat Gambien yi dama toog di leen ko waatal moo tax bi mu amee Atlanta ñoom ñëpp bettu leen parce que damay daan dem ci ñoom ne leen ah bés bu ngeen déggee ma saaga ndey rek mooy aada moo tudd ma ne leen bés bu ma aada moo tuddee ci laayi fam yéen ñëpp bu leen bett dinaa defanteeg moom loo xam ne yéen sax di ngeen ne ah mbaay kii du yow te noonu ma ko waxee woon ndax xamoon naa ne un jour viendra dara nga ma laal ndax yow dëmm nga amoo xarit ñi nga àndal ñëpp di leen gay muy woykat yeeg ci kat yeeg ku ne na xool na toog xaar sa ndawtal ku ne na toog xaar sa ndawtal yow natt nga yor dangay ngay tebbil ñépp waaw la démb benn artiste bu mag benn waykat bu mag waaw nga xam ne danga koy tiitaroo ci ñi ngay tiitaroo la boq woo ma ne ma mbaay dindil vidéo yi bàyyil mu sedd te mbaay bàyyil saaga yi dama la ko ñaan man suma la ñaanee war nga maa may ma ne ko may naa la mu ne ma aadamoo du nii lañ koy toppee dangeen koy bàyyi di ko seetaan gambien yi mu saaga mettiwu la yow dong ñun ñëpp metti nañu yow ñi ngay xeexal la la njëkk a bañ ñi nga ne ñoom ngay défendre ñoo la njëkk a bañ ndax ñoom gambien yi dañ leen bëgg te ñoom it dañoo bëgg gambien yi ñu ne aadamoo gambien yi mu saaga ñun ñëpp la metti waaye mbaaye bàyyil ndax gambien yi dinañ ko fajal seen bopp te dëgg la de gambien yi dinañ faj saaga bi nga leen saaga de kuy gambien ak képp kuy yeewoo gambi aadamoo vidéo baa ngi fii yaa ko yónnee gambien yi dinañ ko faj de dinañ ko faj de te yow at àddina bépp la ba xanaa dof yeeg wuyu yeeg band yi ak ñi nga xam ne danga leen jàpp otage ñiy dugg sa live ñëpp di saaga mooy ñi nga xam ne da nga yor seeni vidéo ndax yow dangay ngay waate di santage ñi nga xam ne yaa ngi ñi nga xam ne yaa ngi seeni vidéo muy jigéen ñi nga yor seeni taat da nga yor seeni vidéo ndax yow dangay ngay menacer waate di santage ñi nga xam ne yaa ngi ñi nga xam ne yaa ngi seen i vidéo muy jigéen ñi nga yor seen i taat ak góor ñi ñooñu ñooy dugg di la jaay ak dof yooyu nga xam ne ñu ngi toog senegal ak immigré clandestin yi jaar ci gaal gi seen bopp yi dem nga xam ne wirunu buñ demee Europe dañuy déclarer ne ay góor jigéen lañ pour am kayit pour dund yow ñooñu ñooy dugg ci sa live la dooleel waaye yéen ñëpp faalewu ma leen ndax ñoom amuñu fit jàkkaarloog yow li ma jàkkaarloog kenn amul fit bi yow koo musa woo rek saaga ko ndey nit ñi dañ ko naan bu ko topp bu ko faale bàyyi ko mu toog di ko misère di ko naqarlu li ma naan nit ki buñ la waxee loo mënut a faj sa biir xol nga koy deñ tey man ar na artistes yu bari yoo xam ne ñu ngi Sénégal dañ may woo naan ma mbaaye xam nga man lan moo may jàpp sama xol bi may naqari su may waxtaan ak yow nga ne ma parce que dañ may wax loo xam ne duma ko mën a faj moo tax artistes yu bari Sénégal boo leen miinee boo toogee ñoom tux rek la ñuy def ak naan café tux naan café parce que dañoo dépresse parce que nit di la wax lu la naqari ko faj dalay dof loo waaye waaye man man dëgg la de nit dañ ma bëgg de te ñëpp samay nit lañ waaye nag sama bopp mu la gënal du bañ naa la man du def loo xam ne nii daf may gaañ ma koy naqar te naqar lu weesuwul nit wax la dara ñépp naan la mbaaye bul wax lii mbaaye nit ñi dañ lay daw mbaaye nit ñi dañ lay ragal mbaaye nanga man saagaw ma nit ñi man aadamoo la saaga ndax moo ma saaga tey aadamoo moo ma saaga nee naa leen tey bu keneen defoon vidéo mille vidéo saaga ma duma ko ba duma ko saaga na ñépp def ay vidéo àndandoo ñun ñëpp def ay vidéo di ma daggali saaga nday ba suba ba ngoon baal naa leen du ma génn man yàgg nañ maa saaga lay duma ma waaye Adamo dafa taxaw ne man kenn ñemewu ma man àddina bépp a ma ñeme àddina bépp ma ragal man àdduna bi rawatina Sénégal maa yor Sénégal maa nangam damay nangam taal seen damay nangam ne man ku ma waxal déggoo day wax sax naan man Adamo kenn du saaga kenn amul fitu saaga ma man ku waxal da ngay tiit waaye xam nga ni mbaa yàlla dàq saaga de man mi saaga ba saaga sa yaay ilimaan yi la doon ngénte waa koñ ba géwél ya ñëwoon doon wayaan di ko yëgle lawbe ya toggukat ya euh, docteur ya la rewle adamoo réewuloo dama la doon wan ne maa la gën a saay-saay léegi nag am nga sens parce que gambien nee nañ ma ma bala comme que mën nga saaga nday ba pare saaga nday gambien yi ngir bëgg gambien yi bàyyi ma ndax nee nga ñoom ñooy ànd ak góor jigéen yi te li tax aadama Barrow di ma bàyyi may toog ca dëkkam ba ba tax nga boole Gambie yëpp def leen ci pot saaga leen ndey ñoom dinañ ko fajal seen bopp ñoom wax nañ ma ko te bis buñ ko fajee di nga xam ne faj nañ ko te man tamit dinaa la bàyyi di la saaga ndax dañ ma ko ñaan ne ma mbaaye bàyyil parce que saaga àndul ak sama jëm àndul ak sama personnalité ak sama maanaa waaye dama la doon ñama rek wan na le munoo saaga yow li ngay def garaawul am nañu la ko dàq te wan naa na le maa la ko dàq ndax deux heures de temps laa taxaw di la saaga ba mu jeex te lu baat bu ma wax jaaruma ci saaga naa la ci endo saaga naa la ci naar saaga naa la ci japonis saaga la ci soose saaga la ci bambara pël fuuta saaga la ci Tokyo Japon North Korea Thaïlande Suède lu ne saaga naa la ci wayal la ba wayal la aayaa bi mbam ak tang fóoree inde jur yoo nag awma sa jot maa ngi nii di dem New York di man VIP la aw ma temps man bokk ma ak yow man je libre yow libro man passeport américain laa yor fu ma neex dugg fu ma neex dem ci àddina dëkk yu baax yëpp laay dem yow libro yow ci seen néeg nga toog di laxatu sooy génn mbaxane ngay sol di muuru takk masque korona kan xamul foo ne doo wane sa adresse doo wane sa kër doo wax ville bi nga dëkk waaye ñëpp xam nañ ko parce que ñu ngi lay defal pétition ak ay plainte yu ñëw ci yow waaw amoo live amoo vie man nag dama fii maa ngi nii di ambiance di mbaboori toog ci snap bi di jaagar jaagari yow toogal ci Instagram bi ak euh, TikTok bi ndax xaalisu TikTok ak réseaux sociaux ngay dundee sa page yëpp bloqué nañ ko sa YouTube yi bloqué nañ ko fayatuñ la léegi da nga ne woon xaara sénégalais daal comme que saaga naa ba ñu bañ ma xaaral ma mepp leen ndànk ne leen kaay ñu àndandoo xeex góor jigéen yow sa noonu woo ne la ñu àndandoo xeex bu xeexee ba pare day ëlbatikuwaat ci yow. tol ni aadamoo biir Sénégal ci biir sénégalais yi Sénégal yàgg ngeen am noon waaye mosu leen am noon bu mel ni aadamoo noonu buy woote salaamaaleykum salaamaaleykum. ñu ne kon naa mu ne leen kaay leen du wax Jean du wax Paul. woowul woowul malien woowul guinéen woowul gambien sénégalais lay génne taatam loolu mosu leen koo am ci àddina yàlla indil leen ku mel noonu ah ñaanu leen yàlla teggil leen ko mu woo leen di leen nax ne leen kaa leen àndandoo xeexi góor jigéen ma bàyyi leen sa bàyyi leen seeni taat ngeen bëgg lu ko neex am na ñoo xam ne bëgg lu ko neex bëgg mu bàyyi taat yi ndax da leen neeb ndax yéen da ngeen neexa ndax moo tax ngeen ànd ak moom ne da ngeen koy sippot góor jigéen yi nag moom dina ko tege ci suuf parce que lii ko góor jigéen yi yekk ci kaw suuf ci kaw àddina ak affrontement bi ñu ko affronté mu dof affrontement bi ko góor jigéeni affronté man ma dugg ci affronté ko ko mu dof ba pare ñëpp a jàppale laay fi yaa ngi toj mu yuuxu di say nelawatul amatul jàmm fi mu ne dina wax bay bëgg a dina laayif bay bëgg dee dina wax a wax a wax ba jaan génn ci gémminam gi ndax mënul wax lu am sens dina saaga ndey saaga ndey saaga ndey saaga nday saaga ndayu ba ne dal daa dee ñu yenn ko yóbbul ko selbe ndong yaayam ndong misaan ndong wàlle ndong biram ndikke wàll mooy ndong ndong ndong du ma ko eggale xanaa tiktok <laughs> non aada aadamoo du nit kese waaye jox mi nga de daanu bi ma daanu sa kaw de xalaatoo woon am nga sens nag parce maa ngi nii di dem xew di ambiance di mbaboori aw ma sa jot man bu xaalis taxawee damay bàyyi lépp lijjanti ji xaalis ak nit ñu baax ñi waaw ak gambien yi ma ñaan ne ma mbaaye bàyyil ñoo tax ma bàyyi la ak artistes yi nga xam ne danga leen di tiitaroo ñu woo ma ne ma mbaaye bàyyil nga ne dangay dem Sweden demal boo demee dootoo ko defati boo jógee almaañ googu nga ne ci sa pukus ba ba dagg bi yéen yaa ngi dem Sweden boobaa nga xam ne yoroo dippal ay satanaan di te la doo ko defati bu la Gambien yi jàppee waaye foofu doo fa mën a dem sax nga woote te noon noonu la bare pexe foofu doo fa dem parce que fexe nga buut lay naan waaw sama liggéeykaay nee nañu waaw anniversaire bi am sama liggéeykaay wax naa ak gars yi ñu ne ma duñ la bàyyi te gars yi xam nga sama liggéey bi yow liggéey boo xam ne yow restaurant ba doo fa serveur xolli woo xolli woo pombiteer transport sople ah euh, jaayoo fa sàngara jaayoo fa bi drink euh, taxawoo ci ci bunt bi di xos yow fa tàng fa lañ la bàyyi yow toggoo yekkoo ca restaurant ba dañ laa bàyyi bu nit ñi lekkee ba pare palaat yi ak seen gémmin yi xeetu gémmin yi yeeg xeetu gémmin yi ñëw ak desit ñu jël yooyu yëpp ne la raxasal ngay raxas géex yi la tubaab yi géex façon géex yu bari yi géexu Jean géexu Paul géexu Richard géexu Catherine géexu Odette géexu picca géexu Donaldo géexu géexu Rodolfo géex yooyu ñuy géex ci seen kudd yeeg palaate nga di ko noyyi looloo la dofloo moo tax foo toog naan sa yi seen xet gi ngay noyyi ak dorog bi ngay utiliser ak dorog bi ngay utiliser moo la dofloo boo jigéen naan da nga soj kan mooy soj un yow bi la nit ñi xamee ba tey ci bakkani seen lañ la xam un ngay mel ni njugub ak sa zulu bu bon toog na yàcceeg sa tuutiwaay ni prématuré am nga sens nag li ma naroon def ay robb laa la naroon solal ak ay ndoket ak ay moo la loo boo jigéen naan da nga soj kan mooy soj un yow bi la nit ñi xamee ba tey ci bakkeni seen lañ la xam un ngay mel ni njugub ak sa zulu bu bon toog na yàgg teg sa tuutiwaay ni prématuré am nga sens nag li ma naroon def ay robb laa la naroon solal ak ay ndoket ak ay pirig waaye gambien yëpp ak may ñaan waaye ñoom dama leen ne dinaa leen may lenn dama leen ko wax de dama leen ne dinaa leen may leen dinaa bàyyi saaga yi gis nga Sina bi suma fee saaga su ma koy saaga Instagram eh, TikTok lay dem nee naa leen dinaa bàyyi saaga yi dootuma dugalate ay vidéo taatu neenam loolu moom wax naa leen ko waaye nag bàyyiwuma ko ndax moom ni nga ko gis ni moo dàq coow nit ñi ni muy coowee nit ñi di wax nit ñi lu bon su ko nit waxee dara da koy naqare gisoo yaay ji dafa jooy woo ko naan ko ay waay dama bàyyil ñii ay bàyyil ñii yéen ñii saaga yi ma saaga ñaaw na maa ngi toog mënuma lekk mënuma naan yaay ji naan yaay Adamo allo Adamo Adamo man la sa yaay Adamo bàyyil ñii Adamo bàyyil ñii saaga nañ ñu ba mu ñuy bëgg a man sa yaay bëgguma dara Adamo Adamo bàyyil ñi saaga yi metti na ma wuy yaay bàyyil ñi jékki-jékki ëllëg mu ne ko bàyyil nit ñi mu ne ko nga dellu ca la nga nekkoon si sa yaaya nga dellu ca la nga nekkoon sax moo gën ci ñii nga dugg yow neewoo sa doom ji génne taati jàmbur yi neewoo ko bàyyil li ngay def bàyyil nit ñi ngay saaga ndey te dem liggéeyi ji bàyyi doomu jàmbur yi bàyyi taatu jàmbur yi ngay génne ah nga ne ko delluwaatal ci taatu jigéen yi ngay génne moo gën nga naan dangay xeex ay góor jigéen Selby mii Selby yaa judd ci gëléem nàmp ci mbaam Adamo nii rek la war a mel quelle mère quelle naan telle mère tel enfant Adamo mënut a baax déedéet liñ naan liggéeyu ndey doom yaayu Adamo dafa wane boppam aadamoo yow sa yaay dalaa weer toroxal la te xamoo ko waroo woon dugal audio bi yow da nga wane ne sa yaay baaxul parce que sa yaay bu baaxoon dala naan aaduma bàyyi nit ñi xam nga dof nga doy doy xalaat man lii bu ma ko sama yaay yónnee woon du ma ko dugal dama koy nëbb duma ma ko nangoo dugal bàyyil xeex góor jigéen ñi te nga dem di génn taatu jàmbur ji leen weer parce que ci nga koy dundal ñi ngay woo di leen sentence ñu lay jox xaalis li Nabou Daas wax ñu lay fey pour di la protéger pour nga bañ leen di génne seeni taat ñooñu liñ lay jox moom ngay dundalee selbe Selbé xam ne xeex góor jigéen ji doo ci am ndam parce que boo moytuwul ci ngay jëlee gàcce ci lañ lay takk Europe génn la se Europe nga ñëw senegal nag ñu teg le monument de la renaissance ne Sénégalais yi ne ku ne jël xeer ñu def sànni jamra ku ne di la jam da nga sedd guy ca moniment monument de la renaissance lañ lay teg boo ñëwee Sénégal Sénégalais bu ne yor xeer di xàcc ñu la koy jëm set millions Sénégalais yi nga saaga yëpp jëm la xeer yi bu ñu paree 3 millions gambiens yi ñëw jam la xeer yi ak maliens yi guinéens yi ndax yaay laal yow bawoo kenn sa yaay xam ne sa xaalis baa ngi jeex ndax lekkatoo naanatoo amatoo dara ah mu ne la bàyyi ñoom mbaay waaye am nga looy fàttaliku loo xam ne ilaa yow mi din doo ko fàtte maag yow ñu ngi ci youtube bi te du dañ ilaa yow mi diin waaw dama la mais maa ko def exprès perturbé la live bu jot ma dugg ci dugg ci live yëpp pour perturber la nga xam ne dootoo amati benn temps sama temps rek ngay am ndax xale yu jigéen ñi noppali ko dootoo amati benn temps man ngay toog di ma saaga moment bi may saaga maa ngi yéeg ci avion yi di tukki di ambiance di noos ndax saaga li ma naan wax la rek boo xam ne du la laal fenn takkul fenn musoo gis ko ñu saaga ba mu dee mosoo gis kuñu ñu saaga ba mu ñàkk la mu amoon mosoo gis ko ñu ba mu feebar saaga wax la rek te li ñuy wax mooy lépp tu tur boo xam ne li ngay tudd sa yaay am na ko sa papa am na ko li nga ne moom ngay def sa yaay dañ koy def sa papa dañ koy da koy defaate loolu rek kay saaga di tooga di saaga di wax lu ñaaw l'essentiel amoo ci man lenn loo xam ne war ngaa woote salaamaaleykum salaamaaleykum taati pambaay salaamaaleykum salaamaaleykum déedéet te man lu ne wax naa man wane naa ba wane say far wane naa ba wane say far ci TikTok bi waaw man du ma yow te li lay dóor a ngi ñëw nag toogal xaar toogal xaar nee ñuy defante yow toogal xaar nee li ñuy defante yow duñ ko toogal xaar waaw dama ñëwoon nag pour leeral pour baalu nag sama pour baalu àq Gambien yi premièrement baalu samay xaritu sénégalais ndax tamit am na sénégalais yoo xam ne samay xarit lañ te dañ ma bëgg man du sénégalais yëpp a may xeex wala sénégalais yëpp a ma bañ waaw. fii di di def yëfu hypocrite naan sénégalais yi bañuñu ma sénégalais yi dañuy samay soppe lañ wala aw ma noonu sénégalais déedéet duma def loolu waaye nag bari naa ay noonu sénégalais ba xam ko moo tax ma di leen moytu waaye nag aka maa bari ay soppey sénégalais ñoo xam ne dañ ma sopp ñooñu nag maa ngi leen di jéggalu ci saaga yi ñu gis ak wax yu ñaaw yi maa ngi leen di baalu di baalu gambien yi di leen wax ne jeex na jeex na. tooñ na ma lijjanti naa ko ba àddina bépp xam ko xam nga lu ma doon bañ li mu wax ambaaya su ko defee ñu lim ma ci victime mi parce que ñim fi saaga ñëpp dañoo fay da leen fay kappet man nag munoo maa fay parce que ba may tàkk juddu woo maa la mag maa la ëpp parke ëpp la daraja gën laa xam àddina fi ma dëgg sama tànk dëggoo fa sa tànk li ma yor yoroo ko fi ma ne newoo fa fi fay dugg doo fa dugg li ma mën mënoo ko li may wax doo ko wax li may déglu doo ko dégg ñi ma xam-xamuñu la du ma yow te doo man waaye nag boo ma bàkkee damay suufe wàcce sama bopp ba mel ni yow wuy si la damay ñàkk classe ba mel ni yow wàcce sama bopp ba mel ni yow tuutal sama bopp ba mel ni yow vulgaire ba mel ni yow ñàkk kersa mën a saaga ba mel ni yow defanteeg yow ba pare yëkkatiwaat nag sama valeur doonaan mbaaya amaat personnalité ndax man sama te dama ko judduwaale sama dignité ak sama maanaa yow mënoo koo dindi ci man te yaa ngi toog ci sama sénat bi di ma xool yaa ngi ma saaga ma fayu nga wax ma lu ñaaw ma delloo la ko ba wis la fi ne nelaw nelawatoo saa booy nelaw mbaaye ngay gént boo xarañee ne xuux deuxième bi da nga naan mbaaya deuxième bi nga ne mbaaya sa yaay nelawul moo tax ngay génn di yuuxu di prier ci sa laay fi di bëgg a dee ndax li ma lay wax nee naa la li ngay wax nit ñi mu leen di metti noonu la la wax di mettee yow ku la saaga mu metti la keroog bañ la jiinee ne la yaa def taat ba ngay tëdd ak tubaab ba di tëdd ak xale bu góor bi vidéo yi ma dugal démb ñu ne la yaa ko def danga la metti tuutee des nga dee yàlla daf la ñamal ne la sentiral li ngay def nit ñi ñu koy sentir yow kenn futtiwu la kenn génnewul sa vidéo yaa futteeku dum def taata neen ay yooyu cokk démb Sénat bi toj na dañ maa woone ma mbaaye lii lan wuy mbaaya Sénat bi xar naa ko démb nga futteeku dung xool leen samay non ci laa xam ne nag wéru waaye dof dof boo xam ne day yàq su doon dof nga boo xam ne doo yàq waaye dof boo xam ne day yàq caravage ngay yor di ko caw te loolu laa lanteeg yow maa ngi ni jëm New York je vous aime mes sama xarit yi ci Sénat bi ak ñi bëgg mbaay ñëpp képp koo xam ne li ma def metti na la maa ngi lay baalu wan na ni du man parce que xam ngeen ne du man waaye nag ku mel ni Adamo da ngay jëflanteeg moom ca na mu mel parce que Adamo du la saaga nga koy toog naan ko toog fi nga toog naan ko ah aadamoo duma ko topp aadamoo dof la mu def ko yoonu tool wax ju mu wax ñàmbaas la ci dangay ngay defanteeg moom ba bu tëddee benn nopp bi yow lay bàyyi xel benn bët bi du ko pat dala ciy bàyyi xel saa bu la gisee xel ma dina dem ci ii kii lim ma wax ak li mu wax sama yaay loolu nag mooy àddina waaw ndax aadamoo saay-saay la aadamoo garaawam yëpp du dara aadamoo reyul nit aadamoo yorul pistolet di talaate aadamoo gaañul nit aadamoo mësul lekk nit aadamoo musul miswi nit aadamoo mënul dóor kenn kurpeñ aadamoo dafa soxla ay vitamine soxla ñu samp ko perfusion benn midi benn ngoon benn matin ah suppal ko supp bu yolam paccal ci li moom jox ko mu naan ruyal ko ruy bu luy dokk jox ko yii la aadamoo soxla waaw waaye nag defu leen mu toog di saaga nit ñi di ñaaw làmmiñ nga won ko tamit moom li mu nekkee ne ko nga nekkee du yoon te am nga ku la gën a capable ma la doon wan ne la maa la gën a capable maa la fit te bi mu bés bu ma nit ñi bàyyi woon ba ma jëflanteeg yow li ma mbébatoon xamoon naa ne bu ma commencé coow li Gambien yi dinañ ma freiné xamoon naa ko li ma ci bëggoon chance bi ma ci bëggoon moo tax siiw du jàmmi borom boo siiwee doo too moom sa bopp xamoon naa ne bu ma commencé coow li rek Gambien dinañ ma freiné te ñi may ñaan duma leen mën a gàntu bañ naa ba sonn waaye ñi may ñaan duma leen mës a gàntu parce que dama leen rus ndax dañoo baax ci man te bëgg ma respecté ma fonk ma waaw comme que nee na ñoom nga saaga saaga waale ma ñoom naa bàyyi ñoom dinañ fajal seen bopp te bés buñ ko fajee di nga xam ne faj nañ ko bu soobee yàlla toogal un jour viendra nag kuñ ko wax nga foog ne tabaskee tax un jour viendra kuñ ko nga foog ne tabaskee tax yow démarre rek sa jour a ngi ñëw. sama jaabi affaire bi yow.